1989 yi amoon ci diggante Sénégal ak euh, Mauritanie ci la ñu foofu foofulee ca Mauritanie andi leen euh, fii ci Sénégal boobu ba léegi nag ñuy jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ñu fa yéene waxtaanee euh, événement yooyu ak tamit seeni jafe-jafe ñu daal di dalal Abdourahmane Sy nekk kon porte-parole coordination wala organisation des réfugiés mauritaniens euh, du Sénégal ñu lay nuyu di la dalal jàmm. de voilà ñu lay remercier ci sa disponibilité euh, seen kuréel gi naka la euh, ñëwee exactement lan moo tax ngeen daal di koy sos. Euh, ginnaaw bi mu nuyoo seen auditeurs yi sant yàlla du julli yonent bi salaahu salaam. Mhm. kuréel bi moyen bi ñu ñëwee en quatre-vingt-neuf dañu nekkoon cent vingt mille. Euh, cent vingt mille cent vingt mille réfugiés mhm. yi nga xam ne moom la ñu déporté woon indi ko fii mhm. profito si euh, retour euh, daq ñi nga xam ne nekkuñu woon ay Mauritaniens ñu profito nag yónnee ko mhm. avant état du Sénégal di xam ne ñun ay Mauritaniens lañu fekk déjà pont aérien bi def nañ ko en place ñu profito nag Euh, déporté ay fonctionnaires yu bëri ay éleveurs yu bari ay pêcheurs yu bëri ay cultivateurs yu bëri. Mhm. presque toutes les couches euh, de la société. bi ñu egsee fii si si si euphorie boobu euh, si si dépaysage boobu ak yooyu mun nañu wax ne. Mhm. que biñ ñemee ñëpp daje nañu waxtaan xool comme idée yi nag dañoo wute woon moo waral ñu former ay kuréel yi nga xam ne ku nekk. sa gis-gis ak euh, fi nga jëm mm-hmm. euh, am ñi nga xam ne mouvement des droits de l'homme la ñu monté am ñi nga xam ne waa flamme la ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, mm-hmm. ñoo defoon manifeste boobu yi nga xam ne mm-hmm. pour dénoncer l'injustice et le système raciste d'État et esclavagiste de la Mauritanie ba waral ñu profité nag si événement boobu entre agriculteurs et éleveurs ñi nga xam ne ñu ngi joote fale ci Jawara pour profité Euh, euh, déporter ñi nga xam ne c'est des Mauritaniens authentiques. Mm-hmm. Mm. voilà ñu ñëw kon ak euh, yow ci événement yi 89 euh, exactement naka la euh, demee woon parce que am na ñoo xam ne dañuy dégg événement yi mais xamuñu woon qu'est-ce qui s'est passé exactement ci diggante ñaari réew yi ba ñu profité ci déporté ay Mauritaniens ak tamit ay nit ñu ñuul yu baree bari dinañ ci ñëwaat si kanam tuuti. Mm-hmm. waaw événement yi ñu ngi amoon si weeru koor. Mm-hmm. si mois d'avril la woon. avril le avril dafa. dafa amoon ay euh, éleveurs ak ak cultivateurs. ñi nga mm-hmm. xam ne ñoo jote il y a eu Eh, léegi nag. éleveur eh, éleveur et pêche et eh, agriculteur. fale si Diawara. Diawara dans la région de fleuve au mhm. sud. Mhm. mu nekkaat benn daram bi nga xam ne. mais ñaar ñi jotee Mauritanien ak sénégalais. pour ñuy déglu xam exactement ak sénégalais loolu laa wax. Mhm. dañoo jotee kii nga xam ne mooy mooy éleveur bi. ay juram ñoo dugg ci toolu mm-hmm. agriculteur bi mm-hmm. donc euh, moo waral euh, ñu jàppante ci loolu ba am moor doom mm-hmm. kan moo ci euh, faatu benn mauritanien moo ci faatu si hmm? loolu la tàmbale Mauritanie nag jàppane comme quoi que Sénégalais ñu ngi bëgg a commencer ëppal di rey ay seen citoyen hmm, loolu nag moo waral hmm, naar yi ñoom tam ñu profité ci kàddu boobu pour mun a bale puisque am na lu ko jiitu déjà ba pare. Mhm. Euh, li ko jiitu mooy que il fallait ñu wàññi euh, euh, la la la classe. Euh, la plus intellectuelle de la Mauritanie les mmh. fonctionnaires mhm. ñëpp ñi nga xam ne ñoo gënoon fës pour wàññi leen ñu commencé nag arrêté mhm. ñi nga xam ne ñoo defoon manifester boobu pour dénoncer euh, bii bi lu mu nekkoon si loolu nag la ñu ñu déporté ay sénégalais ay ressortissants ouest africains ak ay réfugiés mauritaniens ñoo xam ne ay ay ay ay mauritaniens lañ mais ay der bu ñuul lañ ñu boole waa leen si déporté si wéri pour que ñu euh, eggale li nga xam ne moom la ñu naan le balayage ethnique hmm. euh, bu ñu waxee nasaraan hmm. mais euh, jafe-jafe bi yëpp mooy que état bi moo nekkul woon état bi nga xam ne état de droit la hmm. kenn umpalewul Mauritanie dafa jaar si depuis Mokhtar Ould bi nga xam ne le premier président civil. Euh, bi mu jógee foofu par coup d'état euh, après la sortie de la guerre de Sahara les militaires ont repris les armes moo waral fi mu ni nii euh, coup d'état yi toppandoo ba quatre-vingt-neuf. Mhm. ku nekk bu sentiree boppam day fetel kee ñëw toog. Mhm. keneen ñëw fetel kee ñëw toog ba. Euh, dernière élection démocratique bi nga xam ne bëggoon nañu ñëwaat ci ay anam yu leer Euh, ci kanamu communauté internationale bi. Mm-hmm. Euh, ñu fal euh, le président Boun Abdallah démocratiquement mais yàggul parce que dañoo tàmmoon coup d'état moo waral Abdul Aziz ñëw. Mm-hmm. destisé yooyu remettre remettre le tout en cause parce que tout simplement bëgg nguur bëgg wéyal bi nga xam ne loolu mooy système esclavagiste et et raciste de l'état de la Mauritanie. bi nga xam ne Maawiya wul Sidi Mohamed Taaya mhm. il avait déjà commencé mhm. donc système boobu nag moo nekk ko problème Mauritanie puisque c'est un système du question euh, ku ñuul kii ak ku euh, naar bu mhm. bu xees bi dañoo am ay jafe-jafe directement non non système bi moo demee noonu ba nga xam ne egg na si population yi loolu lañ doon déplorer nag euh, ba nga xam ne mm, falaam def manifestam boobu ñu profité nag euh, emprisonné ñii yóbbu leen prison de Walata yaakaar naa prison bu siiw la tey si adduna bi yëpp. Mm-hmm. Euh, le cardinal c'est la même chose euh, mooy fi nga xam ne moom la Mawiya defoon cadeau le macabre cadeau. qu'il avait compris par rapport à la fête du 28 novembre qui est la fête d'accession à l'indépendance. Mm-hmm. mooy mm -hmm. le 28 novembre pour jël euh, 28. Euh, Euh, négro-mauritaniens pour les pendre pour le cadeau mhm. euh, des la qui étaient mhm. là euh, mhm. mais mais yow noo ko dundee woon e, événement 1989 yaa ngi woon biir Maurit Mauritanie ñaata at nga amoon loo doon def noo ko dundee woon exactement en 89 j'avais 29 ans bi may ñëw fii j'avais 29 ans en ce moment si ministère des transport laa doon liggéeyee si contrôle ah, en Mauritanie Euh, bi demee ba ñu déclenché euh, émeutes yi commence di rey étranger yi. Mhm. Euh, man département bi wa nekkoon comme ñun ñoo doon yore contrôle bi il fallait que ñu wut ay bis yi nga xam ne dañuy dugg ci bidonville yi. pour au périphérie de Nouakchott mhm. pour jël képp ki nga xam ne étranger la dugal ko ci bis comme sañu bis dem dikk yi nekk fii léegi mhm. yóbbu leen centre des nations unies pour que ñu mën a bañ leen faat Euh, si loolu laa nekkoon man. Mhm. troisième jour bi. bi ma wàccee ay quatre heures yooyu la sama chef de service woo. Mhm. mu xamal ma ne mais demee booy ñëw na nga ñëw de te bul jàdd fen na nga jaar sama bureau. Mhm. effectivement comme six heures du matin lañ doon xëy. Euh, bi ma egsee biram daf ma xamal ne carrément. gars yi day dañu ne sa tur mu ngi si liste bi. Mm. Eh, sénégalais sénégalais nga da war a dem. waaw que yow sénégalais mm, que man sénégalais la. Mm-hmm. parce que tout simplement euh, je suis né ici à Dakar. Mm-hmm. Euh, ñun dañoo nekk les fils des premiers fonctionnaires de la jeune république. Mm-hmm. Euh, en ce moment Mauritanie amul woon. Mm la première capitale de la Mauritanie était à Saint-Louis ici. kon mm -hmm. cela dire que euh, mm, day mel nu Euh, ku nekk dafa war a euh, tànn fi mu juddoo. Mhm. alors que kenn musul tànn fu mu juddu. Mhm. Euh, c'était pas des raisons. Mhm. comme. mais yow mauritanien nga yow. mauritanien laa si baay si maam si maamaati maam. sama village sax. amoo benn lien ak Sénégal ba tax ñu ne rek ab dugal la si liste bi ne Abdourahmane sénégalais la non né ici à Dakar tout simplement. mais dañu gis ni Dakar nga juddoo. voilà donc. y a y a des Mauritanie. <laughs> am pagaille mhm. <laughs> am pagaille yoo koy du xaaju jeex mhm. euh, fi ma dëkk tam aussi fait partie euh, du département du troisième cercle euh, mhm. euh, bi nga xam ne boo jegee Ndar rek Podor bëggee moo si topp moo nekk sañu cercle kon ñu nekk ay fii de fonctionnaires des des Mauritaniens te ñuy maam défendre les couleurs de ñu nekk fa Mauritanie bu muy sosoo foofu la ñu fekk de l'autre côté de la rive. Mhm. en ce moment Sénégal avec le colon n'avait pas encore déterminé euh, fii Sénégal bara yem ak euh, Mauritanie mu documentaire bi ma joxee le 26 euh, bii passé sax maa ngi si delluwaat pour xamal nit ñi Mauritanie naka la judo ak. yooyu naka la juddoo. Mhm. voilà. léegi nag ci périphérie politique yooyu. Mhm. Euh, mënu si woon sori pourquoi parce que nekkul woon alibi. Mhm. alibi bi nga xam ne moo nekk ci constat général bi rek. Mhm. mooy que il fallait diminuer euh, les négro mauritaniens. pour que Euh, vraiment. maanaam xam nañ ni sax Abdourahmane mii mauritanien la. Mm. waaye foog ñu takkal ko ne sénégalais la ñu ñu déporté ko. Mm, comme ñu bëri si man bëri nañ sax. puisque on était presque cent vingt mille. Mhm. vingt mille au Mali et les cent mille ici au Sénégal. Mhm. déporté ici. donc euh, loolu nekkul woon alibi nekkul woon li nga xam ne lu am la. Mhm. Euh, dañuy def li nga xam ne moom la doon dund rek. moins que il fallait effacer cet alibi là pour que. Euh, naar yi gën a bari. Mhm. parce que gis nañu ne euh, négro mauritanie boo nee alpulaar boo nee soninké mhm. wolof mhm. et donc ñii ñë ak bambara ñii ñoo nekk les négro mauritanie euh, en Mauritanie donc mënuñu leen dindi foofu parce que bi ñu demee ba xam ne Mauritanie existé na le premier président am na le premier jeune état def nañ ko en place ñii nekk de l'autre côté de la rive il fallait que ñu ñëw déclarer seen retour au pays pour servir la chose république mm-hmm. moo waral ñi dudd woon ci sant yooyu yëpp en général ñu si gën a bari ñii Ndar lañu ñu juddu ñii Dakar la ñu juddu parce que fii moo nekkoon la capitale de l'OF mm. en ce moment xalaatuñu woon mm. waaw bu demee nag ba jamono dox ba ñoom ñu xam ne ñoom ñu ëpp ni ñuul ñi puisque euh, socialement ñun bokkuñu mm-hmm. bokkuñu xeet bokku euh, bokkuñu aada mm-hmm. euh, bokkuñu mode de vi de société donc mënuñu woon dem ba dépasser le nombre. Mm. Euh, de supériorité. Mm. loolu moo nekkoon euh, cas bi donc il fallait. ñu ne waaw am nañ benn alibi euh, occasion pour wàññi les. wàññi négo Afrique Mauritanien mm-hmm. yow bi mm-hmm. nga ne cëpp. ñu ñu ñu déporté la nag naka la demee si lan lañ leen dugal naka la demee. Mm, euh, euh, voyage bi comment ça euh, s'est passé voilà voyage man sama chef de service bi mu may wax. Mm-hmm. prépare-toi bugguma gars yi di ñëw fii di la yóbbu sinon dañ lay buntu xatal. Mm-hmm. man maa la yóbbu directement aéroport. Mm-hmm. foofu avant muy daaneel fekk gendarmerie déjà. yegsi na ki ñuy naan la commandant de brigade ki nga xam ne moo nekk la frère. de euh, ki nga xam ne moo nekkoon le ministre de l' intérieur Gabriel mooy mhm. Djibril Abdallah son frère qui moom moo dirigé woon la brigade mixte de la gendarmerie. Mhm. Euh, mu tudd Al Dijan moo ma mhm. fay. Euh, ñeente gendarme ñoo ñëw jël si ma directement si kanamam. Euh, ci biir oto bi liñ ma def yëpp avant may egg sax. Mhm. Euh, montre yi ma yore woon baag. commencé di la euh, torturer wala. di ma buntu xatal ci oto bi. Mhm. la ñu commencé déjà. yow la nga yoroon yëpp ñu jël ko si ñu jël ko si man. Mhm. avant ñuy egg aéroport bi ñu egg aéroport aussi. poste douane bi nga xam ne moom mooy contrôler. ñu wax dëgg yàlla ay ñaawteef yi nga xam ne kenn mënul xam parce que da ngay rang. nga gis. góor di lamb jigéen. Mm-hmm. di seet ndax warul dara ak yooyu. Mm-hmm. alors que douanière Sénégal euh, ki euh, jigéen ñi ñu ngi. nii taxaw alors que ñu benn. donc république islamique boobu ñuy wax noonu yëpp dañoo remettre tout en cause parce que. Mm-hmm. ils étaient déjà euh, ancrés dans. li ñuy naan maanaam pamti pamti leen si ay rapport bi feesoon dell. bi ma eggee man douane kenn fuyatuma sax. lu dul gendarme yi nga xam ne ñoom ñoo jëloon li nekkoon si man yëpp. amoon nga ay bagages. maanaam valise boo def sa yére wala leneen am nga temps boobu defar say bagage <laughs> waaw dama jógee ñëw service maanaam daal la nga sol noonu lañ la jëlee yóbbu la six heures matin foofu la ma waroon fekk mhm. euh, cinq heures et demi sept hmm, ma xam ñaata biit lañ war a am ma xam ñaata nit lañ ma signalé si mhm. ay gox ak ay quartier mhm. pour que ma mun a distribuer biis yooyu ñu récupérer nit ñi avant Euh, naar yi di dal seen kaw. pour mm-hmm. yóbbu leen euh, au centre euh, des Nations Unies. Mm-hmm. mooy bu nekk si Nouakchott. Mm-hmm. foofu boo ñëwee population yëpp ñu ngi woon foofu. Mm. foofu lañ doon yóbbu nit ñi pour ñu rawale leen pour mm. ñu bañ a faat mm. euh, seen bakkan leen a faat amaana euh, bilan bi dina gën kon yow moment boobu euh, déporté bi sax moo la gënaloon ñu bàyyi la parce que bu ñu la fa bàyyi woon mën nañ la faat non man ragalu moon faat parce que ñun dañoo bokk si ñu nga xam ne ñun la ñu njëkk arrêté à l'âge de dix-huit ans parce bi ñu commencé circulaire boobu ñu naan circulaire zéro deux mhm. euh, que arab léegi par force la mhm. au lieu ñu laaj population yi ñu ne non léegi arab par force la ñun ñoo nekkoon si ci grève yooyu pour diriger pour wax nit ñi que nit ki war naa mun choisir langam bu mu bëgg mhm. bu dee français la opté wala arab la opté loolu dafa dafa war a nekk volontaire euh, élèves yi moo war a jël comme ni ngay choisir boo nekkee si études yi sa orientation bopp donc euh, nekkul woon cas boobu Euh, avion bu sëy bu muy daanu fii. Mm. Sénégal fii xam naa ne temps boobu fekk euh, <laughs> puisque c' était en soixante dix neuf. Mm. donc euh, <laughs> même boo juddoo mm-hmm. bi muy dem aéroport dafa ne à la presse que ñun bu ñu ñëwee def ñu yóbbu directement à la prison d'Atta pour deux mois et le troisième mois on va faire le service militaire par force. Mm. on était dix neuf des quelques lycées de la Mauritanie des sept région de la Mauritanie qui existaient en ce moment là. Mm. donc euh, euh, ñun xamoon nañu déjà li ñuy xaar ñu ragal ñoom lu ñuy wax parce que dañu bëgg que lépp jaar yoon ñëpp yem. Hmm. ñëpp euh, nekk si démocratie ñëpp nekk ci sécurité. Hmm. ku nekk gis boppam hmm. ñun. dañ ñoo teel a animé si loolu. moo tax mënuñu woon am ay ragal lu ñu. ay ragal ak noonu donc noonu nga jëlee vol. bi ma ñëwee aussi. bi ma traversé gendarmerie dañoo ànd si man ba. le dernier avion algérien bi war a décoller. Mhm. il restait deux places. deux places ma ñëw ak sama benn collègue bi nga xam ne Adama Sow xaw mu ngi may dégg. Mhm. Euh, mu dugg moom ñu ngi ko jëlee fa les postes de télécommunication. foofu la mhm. nekkoon. d'un fonctionnaire. ba fa dugg man ma dugg ñu tëj avion bi donc ça s'est passé. à l'aéroport en moins de huit minutes. on était déjà dans les airs. et dans quarante cinq minutes j'étais déjà à Dakar. Euh, nga ne cëpp. Euh, yan ci yan condition Euh, fan lañ leen yóbbu euh, bi ñu wàccee aéroport fii. Mhm. dañoo fekk ay mm, gouvernement bi def am ay bis en place. Mhm. bis yooyu ñu yóbbu directement Batrin. Mhm. Euh, camp Batrin. foofu lañu ñu fekk ay déportés yu bëri. ñi nga xam ne ils étaient déjà dépaysés. fekk fa encore. Euh, ay naar yi nga xam ne ñoo doon liggéey fii euh, gouvernement bi rabal leen denc leen foofu pour ñu mun a jël avion ñu ñibbi. Mhm. avant ñu leen di rey fii. Mhm. kon ñun ñëpp fekkante woon foofu. Mhm. donc euh, ku amul woon conscience wala laajte si les dépôts rek. qui devrait être dépassé puisque gis nañ ko mhm. gis nañ ñi nga xam ne dañoo perdre seen xel carrément mhm. gis nañ ñi nga xam ne dañoo dépaysé yu ba nga xam ne xamatul euh, kenn xamatul euh, parce que jéegi-jéegi di dox rek ñu jël dugal la si mm. avion yàgg la andi la waxuma la jël bi indi bi déedéet li nga fekkee trois jours yooyu si mm-hmm. meurtre mm-hmm. li ñu faat li ñu faat ak ay anam ñuy faatee mm-hmm. ak ay yi ngay romb ak yooyu yow lu la ci gën a choqué yow bi nga euh, nekkee mm. Mauritanie gis ñuy faat nit ñi ban scène moo la gën a mm. euh, choqué ci événement quatre-vingt-neuf euh, yooyu benn scène wàcc naa sixième mooy sixième arrondissement comme ñoom nañ koy waxee commissariat sixième bi ma wàccee maa ngi gis benn femme di yuufu Euh, bi mu ñëwee dañoo fekk benn fillette de sept ans mhm. d'après la femme mhm. benn fillette de sept ans euh, mu ngi tëdd si tali bi mhm. euh, bu ñu ko laajee mu ne benn borom oto moo ko fen bi mu wàccee di wax borom oto bi borom oto bi beneen naar bu ñuul moo génni jël xale bi hmm, dóoraat ko dóoraat ko ba eggale ko parce que choc bi nga xam ne moom la ko otam def sax. Mhm. Euh, nekkatul woon problème mais il fallait que ñooñu ñëw eggale une petite fille de sept ans. Mhm. Euh, sa dans la tête jusqu'à là où je suis. Euh, musuma ko fàtte. Mhm. du ma ko mës a fàtte aussi. bon euh, le reste maintenant li ngay gis euh, chaque jour. Mm -hmm. pendant trois jours si weeru koor. Mm -hmm. nit ñi ak seen fatigue ak seen koor ak yooyu yëpp. ñu boole si ay reyaat yi nga xam ne teguñu ko fenn. Euh, ak euh, acharnement bi ñu amoon. Mm-hmm. ils étaient hors deux parce que euh, il fallait tuer il fallait tuer. parce que nee nañ tamit ci période bu am na góoru sénégalais yu bëri fa lañ leen jàppe tàpp leen ba nekkatuñu góor. loolu loo ñu si mën a wax dëgg dëgg nii dañoo bëri. Mm-hmm. mais mënoo fekkee lépp parce que man j'étais en en en service. Mm-hmm. donc du ma a fekkee. mais li ma li ma la wax nii moom mhm. maa ñëw fekkee ko mhm. fekkee yaayu xale bii di bii mhm. yaayu xale bi sax man maa ko mujjee jël mu woo benn nit si si mbokkam yi ñu ñëw jël clando ñu yóbbu xale bi euh, kër ga man ma dewaat continuer sama service puisque dama ñëwoon pour laaj euh, au commissariat de sixième euh, ñan ñoo fi nekk ñi nga xam ne dañoo dew dañoo daw feneen balaa ñu leen di ñëw laqatu fii ñooñu en général bi ñu ma waxee la mooy téléphone ñu yónnee ñu oto ñu duggal leen ñu yobbu leen centre des Nations Unies euh, mais euh, euh viol yi viol femmes yi dafa bëri jigéen ñi doon sàkku di leen violer mhm. euh, euh, yeneen viol yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a garaaw sax mooy que ñii nekkoon périphérie dex bi mhm. ñii nekkoon périphérie dex bi nit ñeen di traversé lu c'était di n'importe quoi mhm. des militaire qui mm, s'adonnaient aux, aux femmes aux euh, une, une, de famille violée devant ses enfants. Mm -hmm. deviner que ça doit faire. da ngay euh, sa hmm? njaboot di euh, dox ñu ñu ñu violé la wala ñu jàpp euh, borom kër gi def ko lu ne sa kanamu njaboot. Mhm. loolu yaakaar naa dina am parce mhm. que dañu nekkoon si temps d'instabilité mhm. bien vrai qu'il y avait eu des coups d'état mhm. Mhm. mu nekk kon lu doy waar euh, bi ngeen ne cëpp fii Sénégal bari neen am na ay sénégalais yoo xam dañ leen delloo ñu ñibbisi euh, ndax euh, crise bi amoon mais comme ni ñu ko waxee comme yéen ak ñeneen ñoo xamante ni ay mauritanien lañ ñu jële leen seen dëkk indi leen fii ci Sénégal depuis atum 1989 ba léegi am na ay jafe-jafe yoo xam ne yéen a ngi koy jànkoonteel jafe-jafe yooyu yan la exactement réfugiés hmm. mauritaniens yi nga xam ñu ngi koy am fii au Sénégal. waaw euh, jafe-jafe yi euh, bari nañu kenn mënu koo lim. Hmm. mais euh, li li li li droit prévoir. li droit prévoir rek. Hmm. loolu moo si gën a am solo. parce que dafa am dañ ne dafa am ay droits fondamentaux yi nga xam ne moom la doomi aadama war a am. pour mu mun a dund. xàmmeekaay. même bu dee xar bi ñu yar sa xar bi ñu yar buy génni mm-hmm. mm, il faut nga def si xàmmeekaay mm-hmm. ça c'est le minimum mm-hmm. pour ku ko romb fale sax dina eenoo eh xar bi day kumba mi moo ko moom waxumal nag doomi aadama mu am identité mu am identité. donc euh, réfugiés mauritaniens yu bari. Euh, dañoo ñàkk seen identité. Euh, mm, ci déportation bi déportation bi. bi ñëwee fii. Abdou Diouf. avec euh, tout le traumatisme qu'il avait, mm -hmm. avec tout le choc qu'il avait, mm -hmm. a compris, mhm. il nous a mis sur la voie légale. daf ñoo teg si yoon. Mhm. dañoo inscrire. Mhm. def ay enregistrement. mais enregistrement yooyu bi ñu paree. li si waroon topp moo amul. mooy lan pourquoi parce que. Mm -hmm. il fallait que constitution Sénégal dafa wax. Mm -hmm. bi Abdou defee décret euh, voté beneen décret. pour modifier l' ancien décret. pour que ñun ñu am ay titre de voyage. ñu mun a dox. ñu mun a seet naka la ñuy dundee. fekk xaaruñu kenn defal leen statut réfugié mm, wala lan. lan la leen Abdou Diouf diggoon comme que. Euh, c'était sous son euh, magistère euh, mm-hmm. mm-hmm. Abdou Diouf digguñu dara. Abdou Diouf fekk moo nekk président de la république. Mm-hmm. état dafa am ay engagement par rapport au texte international. bi mu respecté. mu harmoniser ko ak constitution am. moo waral Abdou defal ñu les enregistrements. ak loolu yëpp mm. defal ñu benn décret bi nga xam ne pour ñu permettre de euh, detre vraiment si la bonne voie mm-hmm. euh, bi ñu nekkee si loolu euh, ñu am ay carte verte carte verte yi mu ngi tudd mm-hmm. récépissé mm-hmm. hmm? te bi leen di defal loolu mm. xamoon nañ ni yéen du ngeen ay sénégalais mais ay mauritaniens ay mauritaniens lañ loolu moo waral mu defal ko parce que mm. ñoom état mauritanien dafa ne ay sénégalais rek la delloo fii ñu xamal bu ñu demee nag ba gis ay xam ñoo rawale seen papier ak yooyu yëpp jot nañu am nañu jot a am ñu xam mhm. vraiment que euh, l' état de la Mauritanie mu ngi profité si si événement bi pour sotti ñu mhm. euh, ay doomam yi nga xam ne c' est des Mauritaniens authentiques mhm, moo waral ñu may ñu asile asile politique droit d' asile droit d' asile bi bi ñu amee asile boobu nag euh, la ñu waroon am identification tey fi may wax yow nii lii constitution wax lii prima facie bi nga xam ne décret bi ñu woote bi wax mhm. mooy que dañu war am euh, des titres de voyage mhm. des titres de voyage numérisés mhm. parce que euh, fii bi ne ni actuellement tey euh, Sénégal l'état du Sénégal xam na ni kenn si ñun amul kii ñun ñuy yore ay passeport yu yàgg yi nga xam ne à la main c'est dévolu on au vingt et unième siècle ñu defal de passeports pour que au moins mun na nekk kii am jafe-jafe jàngul mais mun na nekk kii jàng nii mun def ay taabataabam am identification bu ñu joxee identification war nañu xamal institution administrative et financière yi. Mm-hmm. ak banquiers yooyu yëpp. Mm-hmm. que ñun joxe nañu xeetu communauté bi tel document lii mooy seen document. fu ñu munta dem au moins ñu mun ñu xàmmee kii la mais tel n'a pas été le fi mu nee nii. ay carte ba ah, euh, am ngeen carte ay carte d'identité wala la. carte am comme hmm, pièce. exactement carte si loolu laa lay wax nii. waaw hmm, yi ñu am mooy que euh, ay carte yu weex ay carte biométrique la. Mhm. valable cinq ans. valable cinq ans valable cinq que ñun waruñu woon am carte boobu. carte bi ñu war a am mooy carte valable de ans. organisé par le système des Nations Unies mooy ACR. Mhm. et l' état du Sénégal. carte yooyu ñoo war a am dix ans yooyu lañu ñu commencé woon fii. Mhm. Euh, au niveau de Dakar ñu dem euh, comment on appelle Thiès. Mhm. ñu dem saint bi ñu eggee Podor. Hmm, la ma yónnee aha vous êtes en de faire des papiers pour ces gens-là. alors que c' est pas euh, des Mauritaniens c' est des Sénégalais euh, vous êtes en train de faire tout vous êtes en de remettre la relation diplomatique mmh. Sénégal le de l'intérieur arrêté arrêté les faits à Podor mu ne les techniciens du HCR les techniciens de la les représentants officiels euh, de l'État mm-hmm. que euh, il y a plus l'opération va s'arrêter pour euh, euh autre jour mm-hmm. nii la ñu ko arrêté parce que tout simplement l'État de la Mauritanie def na pression sur ñoom. Mhm. ñoom tam ñu reculer alors que ñun li ñu constaté mooy que comme am nañu droit d'asile rek lépp li constitution Sénégal may réfugié war nañ ko am. war ngeen ko am lépp lu texte national euh, texte international bi may. Mhm. war nañ ko mën a am. ñun loolu moo waral ñu jël sañu baat du ñu tàyyi tànk deewuñu. dinañu ko wax dinañ ko euh, du question cas sax xam nga cas mooy que nga dem avec une rigueur et consort. Mhm. alors que ñun. bi ñëwee fii ba léegi avec tous les préfets qui nous ont trouvé ici pendant les trente ans musuñu mm. dégg on euh, mu tane kaas na fii wala yàq na fii wala violenté na fii yana pas mm. dañuy bindi informer le ministre de tutelle ministre de l'intérieur dañuy bind informer l'état-major particulier de la présidence mm. dañuy bindi informer le HCR c'est par ces écrits là bu dee si yiwul ñu dem si presse bi ñu wax li nga xam ne ñu dénoncer li nga xam ne si loolu la ñuy laaj c'est sañu droit rek la actuellement léegi euh, problème yëpp mooy que. mooy léegi ngeen am am ngeen problème mu papier. problème identification. toujours maanaam am ngeen droit d'asile. mais li war li ñu war a teg les conditions ne sont pas réunies. socialement naka hmm. lañ est-ce que am ngeen ndimbal. parce que tamit boo ñëwee dëkk boo xam du sa dëkk faw nga lekk faw nga naan euh, faw nga fay location. Hmm. Euh, faw say doom hmm. jàng ainsi de suite. socialement réfugiés mauritaniens naka la ñuy dundee est-ce que ñu ngi leen di jàppale ci côté boobu. Euh, bi ñu ñëwee bi ñu defee les fii ba Ndiawar les camps de fortune les cent vingt six camps. Mhm. plus euh, Saint-Louis Thiès euh, Dakar euh, on avait euh, des rations alimentaires. Mmh. mais c'est malheureusement ces rations alimentaires ont été arrêtées parce que tout simplement à partir du octobre 94 ils ont arrêté et ils ont l'officialisé hmm, en octobre 95. Mmh. pour dire qu'il n'y a plus de de ndimbal il n'y a plus d'assistance. parce que euh, l'État de la Mauritanie dit que quand continue à les et construire, cela veut dire que hmm. on est en train de nous pour être réfugiés. Alors que nous, on n'a jamais été réfugiés. Nous, on a été déportés. Déportés. le mot qui convient, c'est ce qui gêne tous les gens. Hmm. De dire réfugié. Réfugié, man mun naa gis ma daw. Mhm. ma ñëw bu ma ñëwee dawoo leen dañ leen a forcé andi leen forcé indi. waaw parce que réfugié mooy ki dawee dëkkam dem beneen dëkk. làqatu parce que dëkkam am na guerre wala am na fitna. ainsi de suite ainsi de mhm. kon euh, définition réfugié boobu hmm, bu ñu si dugalee rek au moins war nañu respecter euh, droit d'asile bi ñu jox. Mhm. sañu àq ak yelleef euh, ñun ñoo ko moom du état Sénégal du état Mauritanie du keneen. ñun ñoo ko moom. lii euh, am solo mooy que euh, il faut ñu ñëwaat si si benn anam. Mhm. anam boobu mooy ban mooy que dundin dafa am ay règles bi ñëwee fii dañoo fekk fii la société sénégalaise. Mhm. ñu nekk ak ñoom. musul dëgg benn réfugié am na problème ak benn population. musul mhm. am ba fi mu ne nii ba fi ma toog nii musul am sañu problème mooy état du Sénégal sañu problème mooy état de la Mauritanie comme Sénégal mënul régler problème boobu nii pourquoi. munu ko soumettre la communauté internationale. mais yéen lan mooy seen problème bu weesoo kayit yi bu weesoo kayit yi yow da nga war a dund. waa da nga war a lekk da nga war a naan da nga war a dëkk. munoo dëkk fii amoo benn activité génératrice bu nii amoo benn projet fii bi nga xam ne jox nañu ko pour nga mun a euh, au moins certifier li nga war a am. pour nga mën a ci mm. da dëkk fii deux mois ñu génne la nga duggaat fii nga dëkk fii deux mois nga taxaat fii avance benn avance ñu la demal fari te benn avance sax amatul Sénégal ñetti mm. avance la euh, nga nga nekk euh, un per de famille euh, qui a par exemple une taille de famille de huit personnes mm-hmm. nga am benn pukus loolu àndul ak euh, sañu aada àndul ak sañu cosaan àndul ak sañu diine mm-hmm. àndul encore ak constitution bi nga xam ne moom la Sénégal yore la wax mm-hmm. àndul ak loo texte international kon amul benn koppar boo xam ne mu ngi jógee euh, ci au commissariat des réfugiés wala jógee euh, ci étatu Sénégal boo xam ne dañ leen koy dimbale mm. pour ngeen lekk naan wala ngeen faju non non wala seen doomi mën a jàng léegi mm. ACR benn réfugié mënul ne am na foofu faj mm. arrêté nañ ko te yàgg na doon nañ leen faj début bi ñu ñemee laa la wax après Abdou Diouf Abdou Diouf dafa jóge fii rek affaire yi commencé sox de ah nekkee tane woon franchement tane woon franchement li ma lay wax moom ñëpp ñu ngi may dégg si rajo laa koy waxee mhm. avec Abdou Diouf au moins on a respecté tout bi ab ah, bi fi Abdou Diouf nekkee am ngeen droit d'asile respecté nañ conditions yi. di leen jàppale. si faju beeg lekk beeg naan bi doo fay faj doo fay dara. mais bi mu fi jógee. lañu ko c'est fini la jeex. donc loolu mënul continuer. Euh, Sénégal euh, mënuñu lim Sénégal ci pays. Mhm. phare de l'Afrique comme état de droit comme phare de la démocratie et consort ko mhm. ñu ngi defee nii. Euh, beneen anam bi bu ñu waxee. Mhm. li nga xam ne moo ñu métti wala ñu wax ko fi nga xam ne foofu la ko war a waxee. déggin bi si ñoom mooy que toujours bu ñu waxee waxu dossier réfugié mauritanien rek fi mu ne nii on est en train de de faire grincer. waaw ce qu'on appelle maam dafa nekk daal sujet bu. sensible bu sensible entre les deux populations lan moo ko waral exactement. li ko waral mooy que le Sénégal et la Mauritanie dañoo bokk ndey ak baay. Mhm. historiquement te. en plus encore ñi nga xam ne ñoo am problème Mauritanie mooy les négro africains. Mm -hmm. les négro li leen def Mauritaniens c' est l' état du avec son colon euh, pour euh, créer un, un, pays tampon entre le Maghreb et l'Afrique noire loolu boo gëstoo si livre yi sax mën nga ko gis foofu mooy foofu euh, donc ñun on était des Sénégalais d'origine mais comme de l'autre côté de la rive la ñu nekk fleuve nekkaat na frontière nous on devient mauritanien alors que euh, naturellement et géographiquement euh, on on est des Sénégalais. Mm -hmm. Si maintenant l'État du Sénégal prend ses responsabilités pour diviser son peuple, pour garnir un autre pays. mais yéen euh, kay loolu tax ñu delloo si leen. non ñu ñu delloo ci notre côté la ñu nekk nañu delloo foofu quoi. war mhm. ñu delloo fii war ñu traversé. <laughs> côté ba léegi ñu bokk. mais mais nee nga maanaam côté origine et tout. vous vous sentez sénégalais. non non on ne se sent pas sénégalais. Mhm. dama lay wax euh, circuit bi nga xam ne. Euh, wala yoon bi nga xam ne moom la ñu jaar ba Sénégal am ba négro ma ten yi amaat problème ak naar yi ba ñu jël leen foofu delloo leen fi bu dee kay fi ñu fi ñu dëkk kay nañu delloo au sud de l' autre côté de la foofu la ñu dëkk foofu la fekk baax mhm. kon foofu lañu war a delloo côté bi kay boo traversé rek yaa ngi Sénégal mhm. kon war ñu indi fi moo waral cette déportation là de 89 non noonu la demee. Mhm. Euh, li des mooy que li si am solo mooy que. mais seen yëngu-yëngal bariwul de euh, Abdourahmane euh, si sox. Abdourahmane si si waaw. lu tax mm. ak problème yi ngeen di am parce que souvent dama leen di invité mais réfugiés yi dañu am ay problèmes yu méttee métti surtout coté social et tout. Mhm. mais lu tax du ngeen yëngu-yëngal. parfois ngeen def ay conférence de presse ainsi de suite mais lu tax du ngeen manifester carrément pour ñu mën a taxaw ci seen jafe-jafe interpeller la haut commissariat des des des réfugiés HCR euh, yaakaar naa xëy na euh, sañu da man sañu dernière sortie mhm. euh, ñu ngi célébrer le 9 avril chaque année xam la ñuy célébrer le 9 avril mhm. l'avèn l'anniversaire des événements 9 avril bi ñu mujj préfet mhm. def ñu ne du ñu ko def fii daf ñu empêché ma maanaam ngeen bëgg a célébrer. Euh, événement yi parce que. Euh, journée bu Dakar mu ne leen. mu ne ñàkk ko ñu am autorisation. ban ban genre manifestation ngeen bëgg def mooy que en général on lit une déclaration. Mhm. Euh, bu ñu ñibbee ñu wàccee ay kaamil au nom de toutes les victimes na nekk mauritanien sénégalais ou ressortissant africain parce que si weeru koor la nekkoon ñu ñaana leen ñoom ñëpp après ça. ñu distribuer déclaration boobu euh, dans le net avec la presse et consort mhm. pour se pour mhm. loolu pourquoi ñu koy def parce que tout simplement diggante Mauritanie ak Sénégal jéeyi boobu bu amee war nañ ko war ko fàtte noonu noonu noonu mhm, dañ ko war a pour que autorités yi ak population yi ak communauté internationale toujours bàyyi si xel ci li nga xam ne lii amoon fii vraiment warul warul amaat ñu tere leen ko bi en ce sens que ñuy célèbre le 9 avril. Mm-hmm. loolu léegi ñu tere leen ko fii Sénégal ñu tere ne ko du du benn du ñaar du ñett. Mm, kon loolu bokk na si li tax yéen munoo leen a manifester. ba euh, nit ñi xam seen jafe-jafe euh, carrément. manifester bi mooy que. Mm-hmm. Euh, on manifeste par des déclarations. parce que mun ngeen mun ngeen def ay marches marche tamit dañ leen koy tere. lan ku la mayul nga taxaw lire déclaration dina la may marche. waaw mayu leen ngeen def sitting ñu état état bi buggul sax ñu wax waxu Mauritanie waxuma la waxu réfugié Mauritanie loolu mooy seen problème ah bon je le dis mm-hmm. bu dee vraiment loolu daf leen di déranger da si jóg ñu jéem a koo saafar ñu fàtte dossier bii. Mm-hmm. tànk ñu ngi dund du ñu fàtte sañu Mauritanie bii. donc lépp lu ngeen tant ñu ngi dund. Mm-hmm. du ñu fàtte que nit ñi war nañu rappelé wu l' état raciste kii le système esclavagiste mm-hmm. tant que ñu ngi dundu am nañu au moins euh, euh, xel. Mm-hmm. ak euh, njort bu rafet que dañu war a continuer di wax li xew fale puisque warul am. Mm-hmm. tey on au vingt et unième esclavage bi ngeen di wax Mauritanie dafa am. bien sûr dafa am esclavage apartheid gënalante der bu weex ak der bu ñuul loolu rek moo doon dund fale ci Afrique du Sud yéen yéen gëstu leen yéen ay journaliste ngeen gëstu leen les derniers concours les trois derniers concours euh, ñi am nii mhm. amul benn benn benn négro du du police mhm. du militaire mhm. du gendarmerie paramilitaire yëpp amul amul amul ku ñuul ñëpp naari weex la ay weex la administration mhm. concours direct administration doo si gis kenn doo si gis kenn sam portable yi mun mun naa taal léegi jox la mhm. preuve yu bari ñu ngi fii ñi nga xam ne ay ñiiti weex la mais loolu du esclavage no dama lay expliquer waaw le système bi nga xam ne moom la ñu yi gën a mag mënul muy police muy gendarmerie. ñoom rek la ñuy jël. maanaam duñ si def naar bu euh, bu ñuul. non ku ñuul non non non. ku weex rek alpulaar soninke bambara wolof séeréer non mhm. loolu y en a bu ngeen ko gëstoo di ngeen ko gis te ñu ngi koy wax encore am ngeen ay représentants en pouvoir tout bu ngeen gëstoo di ngeen xam ne ñun lu ñuy wax ni dëgg la wala du dëgg. Mhm. Euh, amul dara lu ñuy sos diggante Mauritanie ak fii. kon ak ak ak lan moo tax ngeen ne esclavage dafa am foofu. dafa am jàpp jaam jaay wala qu'est-ce qui se passe. exactement am na ñi nga xam ne. Hmm. jàpp jaay kay def nañ ko. Hmm. ci loolu la doon continuer nag am na ñi nga xam ne. ay hmm. naar yu ñuul lañu. ñu ngi foofu Biramul Abed boo ñëwoon le 26 nga déglu ko. ñaata yoon la wax fii si rajo yi fii li fa am. ba def euh, euh, ay ay déclaration yi nga xam ne loolu moo am ay ay jaamu jigéen yu ñu yu ñu gaañ yu ñu faat. loolu yàggul sax ça ne fait même pas encore euh, deux mois. Mhm. donc li fa am mooy njaam bi ba léegi mu ngi foofu. daggul daggul musul dagg te ñii tant que ñi ñu jóguñu si loolu. du mës a dagg. Mhm. wala buy dagg aussi. dina am mais waru dénoncé wuñ comme ñu ko war a ak fi àdduna toll. si ba léegi foofu euh, am li nga xamante ni moom mooy esclavage. Mm. am président euh, racisme parce que même même États-Unis sax bu fa yooyu amee sax dañuy jóg xam nga dénoncé ko yuuxu ñëpp dégg lan moo tax ce n'est pas le cas. Euh, exactement def nañ ko def nañ ko def nañ ko même la dernière conférence de presse du président avec avec Diambara j'étais là. motul motul sax deux semaines. Mm. dernier ñaar dernier jour yi. Mm. ñaar dernier jour weeru koor bi rek la amoon. Mm. te président Jamra ñemaat na encore le 26 fii. xam ne ñu ngi nekk jàmm Mauritanie ba léegi ba léegi am ñi nga xam ne euh, si loolu lañuy ñuy léegi nag problème yooyu. Mm-hmm. ak système euh, bi ñuy instauré mooy système. Euh, mm-hmm. raciste boobu. Mm-hmm. bi ñu bi ñu endoctriné si si naar yëpp. mooy que. Euh, dañu war a delluwaat gannaaw xoolaat seen bopp léegi nag ñoom bu ñu bañee ñu xam ne ñii mënuñ jóg si loolu xanaa kay la communauté internationale war na jóg si bu dee wàllu euh, matérialisation seen raciste ñun ñu ngi nii on est des déportés on est des Mauritaniens. Mhm. on n'a pas tué on n'a pas volé on n'a pas dérangé l'institution ni la cause rien du tout donc c'était un un badage ethnique pour que Mauritanie nekk état arabe. Mauritanie bu leen fàtte bi mu créé monnaie am ouguiya en 1973. Mhm. Hmm, c'était pour tourner le dos. Mhm. Euh, quelque at moo ci mu ne moom génn na CEDEAO moom ci ligue arabe la bokk. Mhm. Hmm? donc euh, pour vous dire que la Mauritanie ne rien des Noirs. loolu mooy seen problème. fa bëgg a départager wu la carrément. Hmm. Euh, tey jii yéen pare ngeen pour euh, ñu delloo leen ca Mauritanie retour des réfugiés mauritaniens. en Mauritanie. yéen yéen euh, dañoo xeex. waaw xeex pour dellu xeex pour dellu. ba xeex pour dellu ba ñu am quatre-vingts pour cent des réfugiés. Mhm. yi nga xam ne ñoom dañu bëggoon dellu. Mhm. bi ñu demee. Mhm. ba euh, communauté internationale ACR et les deux ACR. et mhm. le gouvernement du Sénégal et de la Mauritanie bi ñu signé seen protocole d' mhm. pour nit ñi ñibbi ñu commencé l' opération. bi ñu commencé opération bi il y a eu vingt quatre mille ñi nga xam ne ñoo jot euh, ñibbi vingt quatre mille yooyu bi ñu eggee aussitôt dañu ne révisé yi jeex nañ ñoom ñoo arrêté ñoom ñoo via l' accord tripartite. l' état du Sénégal xam na ci dara. Mm-hmm. l'OACR xam na si dara. et presque la moitié de la presse du Sénégal xam na ko ñoom ñoo violé l' accord tripartite qui a été mis en place. Mm-hmm. pour permettre aux gens de retourner. de retourner waaw Mauritanie ñoo ko violé. Euh, indépendamment maintenant de ce blocage de retour. Mhm. Euh, avec la Mauritanie. mais nee nañ même ñi jot a dellu sax regretté nañ ko. Euh, ils ont regretté puisque. parce que lu ñu dund foofu encore c'est pire. dañoo nekkaat ay réfugiés ci biir Mauritanie pourquoi parce que boo ñibbisee sa réew. Mhm. ñu indi la ba à un kilomètre de chez mhm. ñu defal la ñaari baas ñu ne la fii ngay nekk. yaa ngi sa dëkk mu ngi ne tu n'as pas droit d'aller Euh, t'installer mhm. fi nga nekkoon pour nga mën a jëlaat sa suuf ak yooyu mhm. cela veut dire que tu mhm. euh, encore pire encore nga ñëw euh, mënoo am sa papier say doom mënu reprendre seen papier tu la nationalité tes papiers pour pour vérifier de nationalité mauritanienne jóge nga Sénégal fi nga xam ne danga nekkoon au moins sur le droit d'asile sous le droit d'asile mais actuellement ñoom ñu ngi euh, foofu euh, ils sont ils sont devenus réfugiés comme nous on est réfugiés actuellement ici. Mm -hmm. donc ñun même bu ñu buggee ñibbi ñee nee nañu ñibbi amatul. Sénégal xam na loolu. waaw ñibbi amatul. ñibbi amatul bu ñu bu ñu xoolee encore fii au niveau de Sénégal. Mm-hmm. que ñaata compatriotes ñoo nekk fii. Mm-hmm. ñii dañoo jàng ñoo am ay ijaasa ak yooyu yëpp bu ñu demee di bugg liggéey du ñu am ñu jéem a def nag. euh, ce qu'on appelle la procédure d'obtention de nationalité sénégalaise pour mu mm-hmm. ñu mën a liggéey mm-hmm. la liste est longue man damay wax bind ngeen pour ñu jox leen nationalité sénégalaise parce que 30 ans sonn ngeen déglu ma rek ma wax la kay lu leer lañ laa lay wax nii mm-hmm. man lépp lu ma la wax bindal euh, état Sénégal xam na li may wax nii bi ñu defee procédure bi étudiants yi la ñu tàmbale y avait euh, presque une liste de seize personnes ñu defoon demande mais comme l' état pas prêt pour ça. Hmm, jusqu'à présent kenn amul si woon euh, kenn amul si nationalité sénégalaise léegi xoolal rek euh, yëf yi ni mu tëddee. Mhm. fale ñee tëj nañu frontière bi ñu ne ñun jeex nañu. jeex na. Hmm? fii lu ñu yàgg yàgg fii yëpp mënuñu am nationalité fii. Mhm. mënuñu am encore cahier yi nga ay ay papier yi nga xam ne. papier wala papier bu leen permettre ngeen évoluer moom la texte international bi prévoir pour ñu am ko. Mhm. kon imaginez-vous qu'est-ce qu'on devient on devient apatride. Donc le champ d'apatridie la est cultivé par l'État du Sénégal, par l'État de la Mauritanie et la banalisation di ACR. par maanaam daal bokkatu leen fenn. apatridie mooy loolu bëgguñ leen boole fenn. non mënul nekk yow boo bëggee nekk sénégalais munoo nekk. sénégalais nga bëgg a nekk mauritanien ñu ne la déet. non bëgg a retourné sax avant ngay nekk mauritanien sax bëgg a retourné. ñu ne la doo fi retourné kon yow tey ji Abdourahmane amoo droit jël oto dem voyage Mauritanie. comme tey Kumba nu mu ko defee wala. jaamu keneen xalaatuma ko sax. amoo droit ñëw am paas ne xaaral ma voyage Mauritanie non am droit ak hmm. def bi mooy eh, ñaari différence yi. Hmm. am naa droit. Hmm. dem fu parce que dama gis ne tout le temps gars yi ñu ngi dem Mauritanie di ñëw dugg oto. avion ainsi de si droit. non non les réfugiés woo ko. du question ragal. waaw du question ragal. waaw aw ma nu may duggee Mauritanie man. pourquoi ah. parce que tout simplement. waaw réfugié euh, euh, def commission africaine pendant dix huit ans. Mm-hmm. la commission africaine des droits de l'homme et des kon waxuma la sax état Mauritanie wala Sénégal déedéet les onze pays de la sous-région seen état yëpp seen fonctionnement yëpp laa xam. Mhm. parce que je suis de la commission africaine des de l'homme. kon yow instant bi mënoo dem Mauritanie chaque si elle est dañuy gisee dañ di wax lépp li nga xam ne loolu si loolu la nekk. dañuy dénoncer les violations des droits de l'homme qui se passent en Mauritanie dañuy dénoncer l'esclavage mhm. dañuy dénoncer le système euh, mis par euh, ces gens-là mhm. en place mhm. le système hmm? raciste donc euh, yëf yi il faut ñu delloo ko ci benn cadre donc la ku nekk na jël responsabilité am temps bi jeex na juste une minute lan mooy solution lan ngeen bëgg yéen les réfugiés mauritaniens yi nekk fii Sénégal lan ngeen bëgg exactement ñu defal leen ko. juste une minute voilà actuellement li ñu bëgg. Mhm. Euh, euh, le test international dafa prévoir trois solutions mhm. durables. Mm intégration ou réinstallation. Mhm. ñoom xam nañu ñaari yëpp ils ont premier bi. dañoo violé accord tripartite bi ñu si woon. bu mm. leer nañ ñu bloqué retour. deuxième bi intégration fii. Mm. mënul nekk. pour pourquoi parce que état bi moom a gën a xam lu tax mënul nekk. Mm-hmm. même boo bëggee nekk Sénégalais sax duñu la ko may. ça fait plus de sept ans ñi nga xam ne ñoo déposé seen demande ba léegi. amul kenn amul avis favorable. Mm-hmm. donc euh, ñu ngi woo. Euh, la communauté internationale. Mhm. bi nga xam ne mu ngi suivre lépp am na bët partout xam na lépp li xew si réew ñu ngi interpeller l' état du Sénégal. Mhm. ñu ngi interpellé euh, interpellé plutôt. Mhm. Euh, toutes les organisations des droits de l'homme hmm, que nañu xoolaat le dossier de réfugié mauritanien parce que nit ki mënul dund si apatridie dans l' indifférence dans le pourrissement et euh, euh, minimiser mais nu daal dara nekkul alors que on est plus de quatorze mille vies humaines ici sur le sol sénégalais. vous êtes combien actuellement quatorze mille. plus de quatorze mille plus de quatorze mille réfugiés mauritaniens au Sénégal fii au Sénégal yoo xam ne dafa liaison ak les événements de 1989 et les quelques vingt mille qui sont déjà au Mali donc ñun ñëpp on est dans le même cas donc euh, nous nous appelons euh, toutes les bonnes volontés et prix de justice Euh, à revoir ce cas pour le régler parce que euh, nit ñi mënuñu continuer di dund dundin bi ba hmm. abada quelques secondes pour ñu tàggatoo hmm. ah, loo mën a wax ci aljuma si soxo bokkoon na ci xeex bi hmm. ah, génn àdduna fasoon na ci xeex bi xeex pour les réfugiés mauritaniens ba yàlla jëlee ko fi man personnellement invité naa ko plusieurs fois ci sama émission ñuy wax seeni jafe-jafe ah, wéetal na leen ci xeex bi lan nga mën a wax ci aljuma si soxo bala ñuy tàggatoo waaw aljuma si soxo day yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla dolli yaram te ndax euh, aljuma euh, xarit la mm-hmm. mbokk la euh, compatriote la àndandoo si xeex bii la puisque man ak moom ñoo nekk man ak moom ak Moussa Gaye mm-hmm. Moussa Amar Gaye ñun ñoo nekkoon commission africaine des droits de l'homme et des mm-hmm. pour que ñu mën a xamal adduna bi yëpp li xew si Mauritanie bu loolu weesoo aljuma daf ñu dafa jóge fii civilement mais daf ñu tàggoo daf ñu tàggoo parce que gunge nañu ba fii nga xam ne foofu la ko yàlla yemale mm-hmm. yal na ko yàlla xare aljanna barkam des ci njabootam njabootam sañu njaboot la euh, ñu ngi ñaan daal mm-hmm. que euh, yàlla euh, bi nga xam ne dara tewul boole ko jannaat fi daws bu loolu weesoo aljuma nekkul woon rek ay réfugié mauritanien la doon toppatoo de mm-hmm. c'est toute la communauté de réfugiés. De réfugiés euh, les général. 17 nationalités, mmh. avant c'était 19, actuellement les 17 nationalités mmh. de réfugiés euh, oh. africains mmh. vivant sur le sol sénégalais. amul kenn ki nga xam ne war na am jafe-jafe si ay communication wala ay fu mu war egg te taxawu si. Mm-hmm. kon euh, Aljuma c'est une grande perte humaine. Mm-hmm. non seulement pour les réfugiés mais pour la société sénégalaise elle-même. Mm-hmm. parce que on est membre fondateur du réseau droits humains du Sénégal donc euh, euh, perte bi du du du du réfugié Mauritanie rek du Mauritanie rek. Sénégal ak mm, société civile Sénégal ñoo ko ñàkk en tout cas ñu ngi koy euh, ñaanal yàlla xare ko àjjana yow tamit ñu lay remercier bu baax Abdourahmane Sy euh, ci sa disponibilité mm. wax tamit di la wax courage ci xeex bi nga xamante ni mm. euh, yéen a ngi koy xeex pour les réfugiés mauritaniens au Sénégal di remercier auditeurs yi ànd ak ñun comme chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.